képp kuy seetaan Sahel Network TV comme nuñ ko faral di defee rek nuyu naa leen sargal leen leen di leen bëggee di ñaanal ñépp jàmm ñu dégg jàmm am jàmm ñu dëkk si jàmm rek macha allah Aïcha teewaar rek si seen programme looy yëngu dañ ne business profile képp ku fi teew rek dañ lay profile li nga xamante ne si loolu ngay yëngu maanaam business man muy jàkkati minti bi muy jàkkati jën ba mooy borom compagnie bi man képp koo xamante ne am na si loo yëngu rek man bëgg naa nga ñëw fii waxtaan ak àddina ma bay sama gan bi rek ni ñu koy faral di defee mu nuyoo wax leen moom mooy kan laataa ñuy jëkkali waxtaan bi nuyu naa la. asalaamaaleykum mbokk yi man Lamine Dibala Touda maa nekk di admin manager Legimbo. macha allah Lamine nuyu neen la bu baax a baax léegi dañ bëgg nga wax ñu rek lan moo la inspire pour nga start sa pro sa business bii nii di Legimbo. ok Legimbo comme high school dream la. Ah, man naa suma friend bi Mohamed Diallo moo nekk di CEO of Legimbo. so we had this dream together. Then buñ graduate moom he was lucky. Mom mu dem Holland then he studied business management there. Then from from there uh, established website bi. Mm-hmm. Then mu nekk online shopping company so man maa nekk admin manager bi maa ko nekk di run. Mm-hmm. so loolu yëpp foofu la staré daal. macha allah kon yéen moom jàmbaar ngeen da ko commencé si high school bi rek mu ngoog macha allah moom na ñu koy nuyu moom moom di CEO bi kon nag gàcce ngalaama comme que yéen am ngeen xalaat bii nii pour bëgg a commencé dara comme que nekk ngeen ndaw bañ a toog ngeen nekk di yëngu si dara loolu neex na torop léegi ma laaj lan moo andi tur bi la jëmboo. <laughs> waaw ma ne tur bi ñëpp loolu la ñu di laaj <laughs> ku nekk ku ñu wax Lejimbo la ko Lejimbo bi lan la mel. waaw parce que dafa dafa jaaxle parce que soo gisee la comme French word means de. moo tax ñuy lajte comme lan jimbo bi lan la mean. lan kañ la ak ne jimbo la jimbo la because di name tur bi léegi dafa dem viral but soo ah. xoolee Lejimbo comme high school name la daal. because suma friend bi maanaam moom. ñu bari dañu dee ooyee le Jimbo ñeneen ñi la Kali. Mhm. because moom is a football lover then moom Nani lañ ko dee ooyee. so Luis Carlos Almeida. Mhm. dee ko na Nani so man always dama ko dee wale Nani. because léegi am nga high school dañ dem na def friend ah. bi nii. so léegi foofu la ñëwee then from there ku nekk ñu ñu ooyee le Jimbo suñu friends yi. so ku ñu xam rek le Jimbo la ñu xam. le Jimbo la to then from there ñu ne ah ñun tam suñu amee suñu own company dem jarul ñu uti tur ba am ngeen tur ba pare rek la ñu gis rek la mu allah lu neex na li moy tax ñu ne xaritoo parce que da ngeen na bokk si xalaat lu nekkee da ngeen yi ngeen di dimbalante mënoon nga wax ne comme comme mom dem na tukki amna experience bi du ko jàppale man tamit dama try leneen way bolo ngeen ngeen bokk ben xalaat di def li di moy mooy la jëmoo léegi naka ngeen dee def pour sell sen products yi Euh, naka ngeen nekkee di dundee ak client yi surtout online bi parce que Gambia bi recently lañ soog a comme naan la mhm. affaire yi jaay bagage ne si ci si online bi mhm. so loolu yëpp am na expérience léegi dañ laa laaj comme lan mooy sa expérience so far nga dugg si. So soo business bi Legend bo online shopping company la So ñu luñ dee def rek dañ dé make sure ñu am vendors. so vendors dañ leen dé register online. so leen register yi dañu dañ leen register free. Mhm. then send products yi ñu upload ko. then we have so many vendors. ñu am né dañ dé mëna jaay cosmetic products ñu ñi dañ dé jaay ay football. <laughs> football wear ñeneen ñi di jaay ay laptop cosmetic products yi so dañu make sure yo vendo da nga am sa own account uh-huh. then yo sa mën nga yo sa sa bobo mën nga upload sa product yi fofu then nga sa price tag bi ak everything then ñu ñu dé def rek dañ dé make sure ñu ñu mm-hmm. do di marketing so suñ défé marketing bi légui customer so customer ba ne su bëggee dara ni daf ko order ni et su ko order dañoo make sure ne sa address bi mm-hmm. ak product boo bëgga then from there dañ la call ñu wala diw ak diw yow yaa order li waaw oh. ok then ñu dem ñu collect ko si vendor bi dañu indil la ko waaw so noonu lañ ko dee noonu la dee ëppee defee wala yéen naka ngeen dee defee comme seen delivery service bi ndax dangeen ngeen am ñoo xamante ne dañ leen employé pour ñu ñëw di leen def wala yéen neen rek yéen a nekk di dem def loolu noonu. non dañ am ñoo xam ne dañ leen employé comme suñu driver mu fa so moom moo in charge delivery bi. so ku order nii man ci website bi. Mhm. man wala suma friend bi wala suma CEO bi. Mhm. dañ ah, dañoo make sure ne comme yow soo order dara rek. notification bi dañ ko dee gis. dañoo xam ne bi Aïcha moo order lii ak lii. then from there moo driver bi ok kii kii la order. Mhm. then we contact di di vendor. then ñu dem ñu collect item bi ñu package ko ba nice. then from there ñu call la ne la di ak order lii waaw. then ñu dem ñu deliver la ko. macha allah waaw delivery bi ay 3 days la. maximum 3 days la dañ dee make sure ne la ko. su fekkee sori wut sax then di very days dañ la ko di mën a deliver. ok kon dafa depend comme si adresse bi rek. comme fekkee yéen ñi xamante ne yéen seen branch bi bu ñu <laughs> Serekunda comme ku nekk mun na koo jot instant. comme nu ko soxla. waaw man mu ne dañ koy paquet ba mu nice xam ñu jigéen ñi dañ ñeme nice. <laughs> so moo tax ñu naan paquet ba mu nice mm. léegi yéen lan ak lan ngeen dee gën a jaay. mun naa wax fashionable items yi lañ dee gën a jar ah, because soo xoolee léegi demande bi yëpp loolu la. Mm-hmm. comme jigéen yi seen abaya yi. waaw sanse yi nii yaa ma a. <laughs> julli bi gis naa ne noos ngeen. <laughs> tamit ak soo xoolee weerikoor bi tamit dañ overjaay because weerikoor mm-hmm. bi dañ am ay saaku maaloo yi. dañ doon dañ dee make sure ne comme market price bi ak ñun suñ price mu different. Ah. because ñun amuñ ay store yoo xam ne dañ fa war a. dañ ca ah, bagage dañ ca so ñoom ñun dañ ko dee jël from the vendor. then to the di am they are very cheap yeah. léegi yéen ku a jot yéen seen compagnie bi naka la mooy def fan la mooy jaar seen website bi naka la ak number téléphone yeeg yooyu noonu. waaw waaw ñun comme ku xam ne dafa bëgg a jot suñ suñ lifin bi suñ compagnie bi rek suñ website bi moo nekk www dot legimbo mhm. dot soo demee si website bi rek yow sax da nga koo sa bopp. ah gis waaw all items yëpp mu ngi organisé. man kay man mu sob bi noonu laa def ma gis gars yi nag seen <laughs> items yi mu ngi organisé non moo nekk di ah. actual price bi. comme price bi comme ñun ñaari price moo fa dee nekk. comme yow léegi soo odee dara actual price bi dafa nekk ak mm. delivery fii bi. because waa delivery fii bi dañ ko mm-hmm. si yëpp. Mm-hmm. price of the product mu ngi nii ak ah. delivery fii bi tam lii ah. yëpp is attaché daal wala total bi. dañ mm-hmm. yow da ngaa gis yëpp ba soo odee yëpp dañ da amee sa receipt bi. da dafa nekk si sa produit su ñëwee rek yow da ñu jox xaalis bi rek dañu jox sa produit. mu ngi moom neex na waaye waaye ah ñu ne ñu ne da ngaa jox sa xaalis bi rek ma jox la léegi ma ñëw si wàllum xaalis bi. naka ngeen ne defee comme si wàllum fay bor bi. parce que nit ki mun naa laa oo daal ne comme lii ak lii ak lii ak lii laa bëgg a yéen ngeen def seen kéemtalaay kattan pour nit ki jot. ba products nga xam ne yooyu la soxla léegi soo demee si wàllum fay bi naka lañ dee def nit ki daf la dee fay wala da ngeen dee am cours <laughs> de carte foofu noonu. waaw soo léegi challenge yi laa bëgg a xam. waaw léegi soo xoolee fay bi daal. comme duñ dee am challenges yu bari regarding the payment because soo xoolee rek léegi ñëpp ñu ngi bëgg a dem digital ñëpp ñu ngi bëgg dem online. technologie baa ngi advance waaw so léegi ah. du expect wala ni du order dara den nga ñëw ba si moom mu ne la non ne so loolu moo tax di first thing pambe loolu lañ jëlee dañ lay mettre ñu communiquer la mm-hmm. la communiquer ñu la ay sa yaa order lii ak lii waaw so gis nga yëpp yaa amee sa own receipt bi mm-hmm. then from there suñ ñëwee rek wax mi du dee bari dañ la ko dee a joxe nga mm-hmm. so obviously moom amuñ ben challenge regarding the modalities of payment the payment is is going fair Ah, waaw waaw suñu major problème bi moo nekk comme ñun yëpp ndaw leen nii. Mhm. mbaa man ak suma collègue bi ak suñu employés yi. ñun yëpp 25 years la coming down so easy wul it's not easy with us. Mhm. waaw comme dañ am tamit yenn compagnie yi xam ñu ngi leen dimbalee like him jàppale si bu baa a baax. parce que bu ñu nekk noonu sax ñoom jàppale soo jógee suñu office bi da nga ñu dimbale bu baax a baax. parce mhm. que yéen kay oh, xale ngeen macha allah oh. waaye xale yi tey ñooy doon magi ëllëg soo léegi yéen soo leen amee xalaat boobu ne dañ bëgg a yóbbu suñu réew kanam mhm. duñ jël économique buñ jël yëpp si biir réew mi la moo dellu si kon war ngeen a am di soxla ndimbal yi ngeen xamante ne yooyu ngeen soxla pour jëmale seen business bi si kanam mm-hmm. yéen yan ndimbal ngeen soxla pour jëmale seen business bi si kanam ndimbal buñ soxla moo nekk ah, partnership lañ soxla ah, soxla waaw mm-hmm. because soo xoolee ñun right now suñ problème moo nekk xaalis mm-hmm. because every month dañ war a fay suñ office bi then from there suñ véhicule bi tamit dañ ko war a maintenance te we are just started léegi jimbo 2019 septembre lañ ko launch ba tey so mu ngee dem ndànka ndànka te soo lee e-commerce comme profit bi du dee ñëw nga ngeen am profit bam daf dee jël time because soo lee history bi Alibaba ñoom Amazon ñoom ñu ko starté woon so dafa dee mën a jël yees balaa ngeen a hit profit so loolu moo tax we still have the patience dañ am gëm-gëm di comme benn bés tamit dina ñëw waaye right now suñu ultimate problème moo nekk finance yes but ñu ñu ngi try partnership yeah ñu ngi try partnership with other companies mm-hmm. yeah ñoo xam ne ñoo gëm la jimbo okay yeah loolu baax na torop léegi ñu laajte what is your success story so far boo from commencé seen business. waaw ok so lee buñ ko commencé comme ni ma la ko waxee rek 4 septembre 2019. right now ñu ngi amee tamit supermarket boo xam ne ñu ko olee supermarket. Mm, is located at Manjai soo demee Manjai rek ci jaa bi foofu. Mm-hmm. supermarket ban fa boobu suñ major success la nala. la Ya, supermarket bitam mum fa so demee ci website bi dana koo gis te yow soo buggee supermarket yaa ngi tëj rek soo xoolee si pandémie bi nii ñu bari dañ dee toog kenn ñu dem ci suñ supermarket bi den da nga order loo bëgg rek den soo defee sa shopping suñ moto bam fa den ñu gërëm deliver to so mun naa laa wax suñ supermarket bi moo nekk suñ major success bi right kan, now mu ngoog léegi yéen ni neen yéen ñaata yéen a nekk di liggéey comme yéen ñaata youths ngeen jël pour employé pour employé leen seen compagnie bi pour dimbale Gambia ya, waaw ñun right now mun naa laa wax ñun ñun foo la mhm. ñun foo ñu nekk di liggéey foofu soo lee suñ supermarket bi ñu fa am ñaari nit dem ci si lifin bi si wàllum lejimbo bi sax online shopping bi boobu uh-huh. ñu fa am suñ driver bi ak man ye soo mun naa laa ñun foo ah, loolu moom neex na trop kon yàlla na leen yàlla jàppale ngeen àgga fu ngeen bugg a ma bàyyi la rek nga def sa final words laata ñuy tàggatoo ok man lu ma bëgg a wax rek moo nekk ñun ndaw dañ war a góorgóorlu comme programme bi rek noo ko braanee nii dafa important trop because soo xoolee mhm. government bi ñu mun a provider lu nekk ñun tamit ñoo war a xam nga daal suñu doole ñu dimbale suñu bopp mhm. moo tax ñun we came up with the idea of establishing an online shopping company so bi kay moom xam nga mhm. waaw because les la boo xam ne léegi lañ ko start waaye right now ñu bari ñoo ko xam because dama dee mën a dem fenn la nit ñu léegi turi laamen moom dafa réer cër la ji moom rek léegi bi rek <laughs> léegi moom fu ñu dem rek leen ci bola ku ma capa rek leen ci bo leen ci bola yee soo biikeel yëpp dem nañu ne loolu la ma uh-huh, waaw biikeel ma bëgg tamit ñu ñaanal suma suma bi moo nekk di CEO bi uh-huh. moom mu ngee jànga mu ngee def masters Turkey So international business la meka study. So di going to dem ci kanam man Manta man ci University my final year political ya. science student. Mashallah. Yeah, my at political science and management. Legi te ma jihal ta me chu. di ke ma jabal me. Yen na leen yalla jappalé rek way la men bala ngay dem dama bëgg nga lebal ma wala nga wëyal ma bala nga dem. Ma wëyal ma. rek ma wala nga wëyal ma ci di bokku ndey rek xam nga yeen dégg na wëy rek ngeen def. Wa nga man bari ñun bari bu ngalé. So ñun xaliss bi lañ <laughs> halis bi moom soo ma joxee xaalis mun naa laa. mbaa doo léegi da kon bàyyi ma baalal la parce que am naa ne moom. koppar bi thank you so much ñun mi doon Network TV Aïcha la woon rek ak Lamine Diba moom mi nga xamante ni moo jógee foofu noonu di waa la jumbo ñoom nag seen tur bi moom dafa French moo tax moom mu neex of the show bye bye.